jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di faratal di ànd ak rajo Rewmi FM vendredi bu waxtu wi jotee ngeen di baaxoo di teewlu seen émission bi di SOS santé tey nag SOS santé amaat mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di Issa Gueye Issa Gueye nekk secrétaire administratif adjoint de l'alliance des syndicats autonomes de la santé ñu gun ko xam ci ci ci ci ci ànd gësëm Issa Gueye ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM waaye laata loolu dañ lay jaajëfal bu baax a baax ci nangu bi nga xamante ne nangu nga ko wuyu tey si suñu invitation bile eh, fii ci rajo Rewmi FM. Euh, Fatou ñu ngi lay jaajëfal di la nuyu mais aussi di nuyu. seen auditeurs yëpp ñi nga xam ne ñu ngi scotché wu ci quatre vingt cinq mm-hmm. Rewmi FM mm-hmm. Euh, di nuyu sénégalais yëpp. Mm-hmm. mais aussi di nuyu euh, sunu militants yi nga xam ne sunu camarades yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci biir ànd gësëm. Mm-hmm. Euh, buñ ne ànd gësëm nag xel day dem ci lan mooy ànd gësëm ànd gësëm nag cri de guerre la. Mm-hmm. Euh, parce que ay ñeenti syndicat ñoo dajaloo di SUTSAS bu nga xam ne le camarade Mballo Dia Thiam moo ko jiite ànd ak euh, Sidiya Ndiaye bu nga xam ne moo yore syndicat SUDETM syndicat yi nga xam ne état municipaux ñoo ci nekk beneen bi aussi di sat santé démocratique bu nga xam ne le camarade Ndeye Diakhaté mooy secrétaire général bi quatrième syndicat bi aussi nekk euh, CNT santé te tey jii euh, le camarade secrétaire général national euh, Pam Gebel Dieye nekk Aristide Le Dantec jiite ko donc euh, ànd gësëm bi cri de guerre la mhm. parce que nag bu ñu laajee waxtaan waddul dañoo a a gësam pour mu wad mais di nga ma may rek ginnaaw bu euh, ma leeralee loolu ma nuyu euh, naqarlu aussi li nga xam ne moo xew ci réew mi muy euh, mbas mi mm-hmm. ku ne xam na ko tey ji jéggi na dayo trop tey ñi ngi dem troisième vague di variant delta bi mu gën a metti lool donc di ko naqarlu mais aussi di ñaan yàlla jële ko fi mm-hmm. leneen li may wax aussi mooy li nga xam ne na fi xam naa dinañ ci dikk ci biir bi muy agression yi nga xam koy faral di gis ñu ngi koy faral di gis ci sunuy mbokk yi nga xam ne ay naataango liggéeykat lañ nekk ci àll bi bàyyi ay waajur nekk foofu di liggéey donc loolu la ñuy nuyoo di wax ne rek euh, ginnaaw Mm, secteur administratif adjoint bu ànd gësam euh, membre lañ aussi ci secretariat exécutif permanent bu nga xam ne mooy doxal xalaatu directoire bi parce que ànd gësam noonu la tëddee directoire la bu nga xam ne ñeenti secteurs généraux i ñoo fa nekk mais am aussi secrétariat exécutif permanent bu nga xam ne mooy doxal xalaatu ñeenti ñooñu euh, nekk aussi secteur administratif national bu SUTSAS mi nga xam ne moo tax ñu mën a bokk ànd gësam leeral yi am na solo Issa Gueye dañuy tàmbalee rek ci fi nga euh, dooree wax nga ko ànd gësëm dafa regroupé ci ci os euh, ci ci ci ci ñeenti ñeenti ñeenti kuréel mais yenn saa yi dafa mel ni kuréel bu ci nekk ak say point de revendication mu mel ni lu ni mel bu farataale di am ngir ñu dajaleen ci benn table ngir mën a ut ay solution dafay xaw a jéggi dayo lan nga jàpp ne ji ji lan ngeen mën ngeen ko def euh, pour que à chaque fois bu ngeen amee ay points de revendication décision yi nekk ay décision unilatérale donte syndicalisme dafa war a nekk lu riche ak lu varié bien sûr waaw xam nga euh, mbooloo nawle la ñu nekkee ñun ah donc loolu aussi baax nañu koy leeral toujours euh, ay nawle la ñu secrétaire général Mballo Dia Thiam le président daan di gëstam da wax toujours danaan quand on est deux on est plusieurs donc yàlla dogal nañ nous sommes quatre quatre syndicats yu composé And Gueusseum donc ku ne plateforme revendicative dina nekk plateforme bu ngand parce que ku ci nekk am nga sa spécificité mm-hmm. c'est ay militants donc euh, bu ñu indee problème yooyu yëpp boole ko bëgg koo def benn plateforme revendicative dina rëy dina gudd mm-hmm. mais euh, président comme ni ma koy waxee ak mbooloo mi nga xam ne ñoo nekk ci directoire bi ñu waxtaanee xool jafe-jafe liggéeykat yëpp am ndax tamit malgré que bu ñu amee ci ci liggéeykat yi mais benn liggéeykat moo fi nekk muy travailleur de la santé de l'action sociale yi nekk euh, ci système bi donc bi ñu xoolee jafe-jafe yooyu yëpp nag ñu tënk ci fukki poñ ak ñaar yu nga xam ne syndicat bu nekk dina ci gis boppam mais aussi travailleur bu nekk dina ci gis boppam moom la ñu déposé euh, bërki démb di le douze avril ci table gouvernement bi ne ko daal ay la yéwén douze points yi bëgg nañ ci satisfaction malgré que nag du loolu dong mooy suñuy jafeñ-jafeñ mais mënuñu def plateforme revendicative bu kilométrique la ñu am solution wala boog solution yi ñu am duñu gënal moo tax ñu sende ko defar ba mu nekk une plateforme vraiment fédératrice bu nga xam ne ñëpp nañ ci gis seen bopp ñu ñu déposer ko au niveau de la de la table euh, du gouvernement et comme on dit souvent euh, ci plateforme di nga gis ay Euh, point yu nga xam ne ay accord la woon mm-hmm. ay accord la woon yu nga xam ne état avec le président de la République moo ne woon ministre mi nañu signer des accords réalistes et réalisables maanaam lu nga xam ne ñoom mën nañ ko te am nañ ko te buñ ko signer dinañ ko def malheureusement leneen la ñu gis moo tax di nga gis point yu nga xam ne mi ngi woon ci accord yi ñu mujjee am lu mel ne le 17 lu mel ne le 11 janvier 2019 bu nga xam ne ci làmmiñu président lañ nangoo woon mu nañu nangam ak nangam sama ministre def leen ko mais ba léegi gisuñu ko dina feeñ ci plan plateforme revendicative su ko defee euh, Sénégal malheureusement on dit que c'est un pays de paradoxe mm-hmm. pourquoi paradoxe da ngay xeex ba am dara mm-hmm. mais aussi pour ñu appliquer ko da ngay dem xeexaat pour ñu appliquer ko malheureusement et que président toujours da di ko wax des accords réalisés réalisables mais da ngay gis ne pour ñu réaliser accords yooyu rek il faut nga dem xeexiwaat pour ñu appliquer ko malheureusement mm-hmm. donc dinañ xeex pour ñu am ay accords mais aussi dinañ xeex pour ñu am ñu appliquer sunu accord yooyu ndax nag kenn mësuñoo may dara a waa SUTSAS lu ñu am dañ koo xeex. ñu mën a ànd besam euh, des accords réalisables mu mel ni suñu autorités yi dañuy farataal di jël ay slogan yoo xamante ne yenn saa yi faisabilité bi dafay nekk loo xamante ne euh, day nekk problème mu bokk ci seen euh, seen i plateforme revendicative da ngeen di saku ñu def lu ñu duppee organisation de la formation complémentaire jëmale ko ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ay assistants infirmiers yi ñu bëggoon xam rek lu ni lan la dund. waaw parce que euh, balaa ñu koy fàtte ma revenira à tuuti rek. Mm-hmm. ci li ñu defoon li ñu def. Mm -hmm. ci plateforme revendicative bi ginnaaw si après ñu mën a dugg ci ponk yi. Mm-hmm. le douze points euh, bi ñu déposé plateforme revendicative bi le le douze mais le douze avril. donc am nañ un mois franc bu nga xam ne législateur bi moo ko moo ko ordonné muy un mois bu nga xam ne war naa toog waxtaan ak ñun. Hmm? commencé ubbi ay euh, waxtaan bu am solo bu mucc ay bu amul naxante euh, bu ko deful su ñu weesoo un mois boobu rek ñun am nañ euh, droit mën a dem ci xeex au front bi ko déposé le 12 avril le onze mais la waroon jeex jeex na te tooguñu mais amna na aussi ay avancées yu ci am parce que sur les douze points les trois points ont été satisfaits mm-hmm. ah maanaam euh, fukki ponk yi ak ñaar ñett yi satisfaire nañu ko indil nañ ñu ci li ñu ci bëggoon mu des juróom-ñeenti ponk yi juróom-ñeenti yi aussi le vingt et un euh, incha allah dinañ ci dikk le le vingt et le vingt et euh, mais président de la euh, le ministre de la fonction publique convoqué ñu au niveau du Euh, du ministère pour waxtaan ak ñun dajale aussi les techniciens la aussi c' est quelque chose à saluer ndax lu musul am la lu musul am la euh, ñu teg suñu plateforme revendicative ñu wooñu mais aussi boole ñu ak technicien pour ñu càmbar ponk yëpp bu njëkk dañ daan toog gouvernement bi rek amul xaj na duñ ci xam dara ndax ñu ci ëpp amuñu technicité buñ seen ministère laaj mm-hmm. dañuy ñëw c' est des politiques yoo xam dañ leen a tabb foofu dañuy ñëw pratiquement ils ne comprennent pas ce que ji les techniciens lañ jiital ñu waxtaan ak ñun ñu xamal leen ñu càmbar ponk yëpp yaakaar nañ ne c'est une bonne volonté maanaam euh, gis-gisu kii bu baax la wala voilà voilà donc euh, jàpp nañ ne xaj na dañoo bëgg a satisfaire suñuy e euh, loolu dañ koy rafetlu bi ñu jógee ci lool nag ñu ne comme toog nañoo gouvernement bi li war tamit mooy ñu dem ci ñi nga xam ne ñooñu ñu woon mooy ñan sunu camarades yi nekk dans les régions mm-hmm. ah waxal leen lan ngeen ñu yónni woon lan lañ ci def ak fan lañ ci toll loolu moo undu mm-hmm. euh, ñu tàmbali woon benn mm-hmm. ah, tournée nationale ah tournée nationale bu nga xam ne ànd gësëm ànd nañ ak directoire bi def le tour du Sénégal damay faral di wax naan Euh, tooñoo benn syndicat waaye tour du Sénégal du képp ko man du ñëpp ko man en mois d'un mois mm-hmm. nga def tour du Sénégal def tout les quatorze régions du Sénégal loolu euh, gàcce nga la am encore une fois ànd gësam wane na ne am nañ maillage ci état du ci pays bi ci territoire bi donc ci lañu def tournée boobu commencé ko biir Dakar mm-hmm. euh, comme Dakar fi la pratiquement ànd gësam siège bi nekk ñu déparé ko keroog Dantec wax fa lañ fay wax def la ñuy def génn nag dem Ziguinchor bi ñu jógee Ziguinchor ñu dem Sédhiou bi ñu jógee ñu dem Kolda hmm? bi ñu jógee Kolda nag ñu ne nañu wàññeekuwaat waaw au moins am benn jour de repi xëyaat dem génn dem fatik hmm? waxtaan ak militant yi jóge fa dem Kaolack jóge fa dem mm, Kaffrine rencontré militant yi jóge fa dem Tamba bi ñu fa jógee aussi ñu dem Kédougou mm-hmm. ay la yewen bi ñu jógee Kédougou ñu ñëwaat Dakar pour une journée de repos xëy quinze ñu dem Diourbel pour la région de Diourbel donc foof aussi rencontrer tous les euh, waaw camarades yi nga xam ne ñoo nekk foofu yëpp mais aussi toujours c'est des occasions yu nga xam ne dañ ko daan am pour rencontrer les autorités locales territoriales comme euh, médicales yëpp dañ doon gisee ak gouverneur yi nga xam ne ñoo fa nekkal président de la république mais aussi dañ doon gisante ak médecin chef de région mais aussi les médecins chefs de district ak les directeurs des hôpitaux xamal leen réellement suñu plateforme lan moo ci nekk ak lan la ñu bëgg mm-hmm. donc ñoom ñëpp ils sont informés bi ñu jógee le quinze nag ah Diourbel fekk dañoo waroon continuer ndax le le le le le dix le seize lañ waroon dem Matam mm-hmm. mais ay la yéwén le dix sept le dix huit le dix neuf état du Sénégal par le ministère de la santé waroon a def campagne de vaccination contre la poliomyélite mm-hmm. en son temps sax am na benn déclaration bu ñu ci bu ñu ci defoon mm-hmm. di wax ci mbas mi encore une fois di wax aussi ci poliomyélite bi nga xam ne dafa am ay cas ñu gisoon ci réew mi di wax suñuy camarade nañu dem jàpp ci xeex boobu moo taxoon ñun ne nañu sursoir sunu Euh, tournée bi ba keroog campagne bi di jeex ndax tamit ñun ñoo war a dem ñàkki mhm. bu ñu waree dem ñàkki nag xëy nekk ci terrain bi naan dañuy wax waxi syndicat dina nuru leneen mhm. te xale yi ko war a am suñuy doom lañu yàlla bukk ci kenn am suñuy jarbaat lañu ñun ñoo leen war a xeexal te ñun ñooy ñàkkkat yi kon ñun ñoo war a dem ñàkk ñu ne nañ ko sursoir dajeek aussi sunu camarade bu nga xam ne ci membre fondateur u SUTSAS la bokk di Baxaw Seck mhm. daje woon ak euh, dix-neuvième anniversaire bi mu génnee àdduna yàlla na ko yàlla yërëm te yéexe ñu di le vingt-deux juin ñu ne nañu toogaale ay la yoon dem ñaanal ko ci la ñu defoon benn panel ci loolu après ñu reprendre le premier euh, juillet dem Matam jaaraale sax Daara Jolof ak yeneen dëkk yooyu yëpp bi ñu fa jógee ñu dem Saint-Louis jóge fa dem. Euh, Louga jeexale Thiès région de Thiès donc def fa benn meeting bu mucc ayib euh, loolu aussi ñu ngi santaat bu baax a baax di gërëm camarades yi nga xam ne recevoir nañ ñu euh, di wax ne tournée bi aussi objectif bi nekkul woon dara lu may waxtaan ak sunuy camarades xamal leen li ngeen ñu yónni woon xamal leen fi ñu ci toll mais aussi mobiliser euh, les acteurs mobiliser les camarades que dem nañ de. ñu ngi waxtaan ak ñun de buñ ko saafaraa xayrun bu ñu ko saafarawul nag préparé wu leen te dinañ ci ñëw ci kanam que ëllëg dinañ leen woo lañ defoon deux mille dix huit ba yëngal gouvernement du Sénégal dinañ ci jëm te dootul yàgg tuuti dinañ ca yegg ndax nag dilatoire bi bëri na trop keroog ba ñu tàmbalee waxtaan bi ba léegi benn yoon lañ fi toogaat ak ministère de la santé beneen bi comité de pilotage bu ñu xamul mooy lan lañ ñu tegal. Mm-hmm. duñ ca ànd tey duñ ca ànd ëllëg dinañ ci ñëw ci kanam Euh, euh, ngeen euh, amal tournée ci benn weer def ngeen ay pause mais su ma la déggee vous avez fait presque toute l'étendue du territoire national tey jii ba ñu doon defal benn petite évaluation tournée bi ndax am ngeen ci li taxoon ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen sóobu woon ci. waaw il faut le dire parce que nag ni ñu organiser woo mooy suñu demee ci région bi dañ faa am union régionale. Mm-hmm. ci biir département bi ñu am fa section départementale mais aussi ci sous section ci district yi wala ci hôpital yi ñu am fa ay sous section mais ay la yewen bi ñu defee wëndeelu Sénégal ba ñëw gis nañ ne après évaluation sunu sous section yi am ci réew mi yëpp maanaam fu district am. Mm-hmm. wala fu hôpital am ña nekkal ànd gësam ñëw nañu fekkee réunion yooyu te aussi engagé wu nañ que ñi ngi ci ginnaaw le directoire lu ñu leen xooloo fa la ñuy xool encore une fois c'est très important parce que nag ñoom ñoo leen ngemb pour ñu xeexal leen ñi ngi dëgër ci ginnaaw ñooñu pour dem euh, euh, au front pour mën a am ndam ci sunu plateforme revendicative bi. Mm-hmm. Uh-huh. Mm-hmm. Euh, euh, sànq ñu ngi ko doon euh, junduan ah, ci ci ci biir wax bi ñëw ci seen un point de revendication yi mu nekkoon ci douze dinañ ci dugg ci ci ci ci ci ci ci ci biir émission bi mais dafa am loo xamante ne wax nga ko mu di ci douze points de revendication yi am na ci trois yoo xamante ne eh, état bi def na ci ay jéego bu mën a bu baax tey jii rek ñu tàmbali tàmbali ci li nga xamante ne moom moo di li nga xam ne jàpp ngeen que ne loolu jéego la jëm ci lépp jëm ci wàllum wér yaram rawatina lépp loo xamante ne alliance euh, ànd gësëm moom daf koy daal di xeex. waaw mooy li ma wax rek parce que euh, démarche bi. Mhm. dañ koy féliciter ah. Mhm. dañ ci kontaan bu baax a baax démarche bi état jël parce que nit bu la tegalee plateforme revendicative nga ne ko du ma ñëw directement. naan la damay satisfaire lii ak dama satisfaire lii damay teg technicien ñu ñëw ngeen waxtaanee ko donc loolu lu ñu rafetlu la te lool lañ def le vingt et un mai. Mm-hmm. et bu ñu jógee ci loolu aussi mu ne ministère bu nekk da leen di woo en réunion sectorielle ngeen waxtaanee ponk yi fa nekk mais avant ñu cay yegg le douze le onze mai la sunu plateforme waroon expiré le cinq euh, mai. deux mille vingt et un mhm. président de la république génne ñetti décret ñeenti décret ñeenti décret yi lan la bi ci njëkk mooy le décret Euh, réorganisant euh, la situation de l'ENDSS ENDSS mhm. mooy barab bi nga xam ne fa la ñuy former docteur yi nga xam ne ñooy ay infirmiers d'état wala ay sages-femmes d'état wala ay techniciens supérieurs de la santé mhm. parce que nag euh, ni ñu koy organiser réorganiser mooy ñooñee di techniciens supérieurs yi bu njëkk li xewoon mooy BFM lañ daan recruter sage-femme yi ak infirmier yi mais ñu ne dañuy tënku ci organisation OAS lañ koy organisation ouest africaine de la de la santé ñi nga xam ne ñoo ŋànk wàllu wér-gu-yaram te lépp luy droit organisation ñoom ñoo koy def ñëpp àdduna Afrique boobu de l'ouest boobu ñëpp seen niveau de formation infirmier sage-femme euh, bac la woon mhm. ñun Sénégal li ma wax noonu léegi pays paradoxe la ñun kase ñoo doon former fii a euh, mhm. niveau BFEM donc bi ñu xeexee loolu 2009 ba obtenir ko ñu relever niveau bi yéegal ko niveau bac mhm. mais paradoxe beneen bi mooy da ngay dem nekk infirmier deta bac plus trois maanaam licence trois ba pare su dee da ngaa retourné waat école di jàngi nga retourné nekk bac xam nga loolu dara gënu ko nekk paradoxe jàng pour avancer mais nga dellu dellu ginnaaw euh, bëri na ci ay naataango yu nga xam ne ay techniciens supérieurs la ñoom ñooy former infirmier d'état yi nekk B2 infirmier d'état yi wala sage-femme d'état yi nekk b paradoxe romb o nekk B1. gënu ko rëy ko gënu ko gënu ma ay la yéwén ñu ne nag loolu ne ci bi taxaw. Euh, ba le 11 janvier président la république jëloon ay matuwaay ba wax ak ministère la santé ne nu mu gën a gaawee def leen loolu satisfaction malheureusement topp dikkul dikkul et puis il faut le dire. il faut le dire dafa am ay syndicats yu nga xam ne dañoo nekk suñu biir au lieu ñu xool lan moo ñu war a jëme kanam mais luy gàllankoor suñu liggéey parce que ànd gësëm moo ko poote rek ñoom ñun jéem a nekk contre pouvoir ànd gësëm ak yu mel noon te ñun nekkuñu ci yooyu lan lañ doon wax nañ ñu reclasser sans condition mais ay la yowén buñ la reclasser sans condition ñun ay ndaw lañ ay ñu nga xam ne dañoo war a avancer suñu dund lañu tey jii bu ñu reclasser sans condition ëllëg doo mën a jàngiwaat leneen foofu rek ngay yem muy master 2 bi ay la ñun nag ñu ne nañu réclamer loolu ñu dem defiwaat formation am suñu diplôme de master ba nga xam ne ëllëg nañ mën a defi doctorat la yowén tey ji mën ngaa jógee euh, assistant infirmier wala infirmier ta dem ba nekk docteur en soins infirmiers wala professeur en soins infirmiers te décret boobu moo ko moo ko organisé loolu ay dañ ci repré dañ ci gërëm président de la république bi nga xam ne jël na jël na kii boobu malgré que tardé na trop loolu moo wax aussi syndicat yi nga xam ne ñoo taxawoon naan euh, du fi amee wala bu fi naree am seen kaw la ñuy jaar mm-hmm. ñooñee tey réewum paradoxe bi may wax toujours ñoo taxaw ne ñi ngi sant bu baax a baax di gërëm président ci décret bi mu génne te nañ ne woon du fi amee mm-hmm. ñooñee dama leen di cokkaa suuti ne leen dañoo waroon a sant gërëm ànd gësam bi nga xam ne ñoo ko porté ba loolu ba loolu am mm-hmm. euh, muy benn décret bi yeneen ñetti décret yi mu nekk les décrets organisant la fonction publique locale ba nga xam ne tey jii fonction publique locale xeexoon nañ ko ci ànd gësam 2018 bi ba ñu amoon neuf décrets yi mu desoon ñetti décret ñetti décret yooyu di taxawaalu di tambaambaalu ba tey jii la koy soog a génne na mais aussi comme jot nañ ko rek ñu ngi ko ci ñu ngi ko ci gërëm te di wax ne na bàyyi yeexaay bi tuuti daal nay bar comme moone ne nabar la nekk wala nu mu koy fas track ci olof ñu naan ko nabar nay gën a bar sinon ñun moom dootuñu xaar te dootuñu mën a xaar ni ñu xaare woon loolu aussi mooy premier point plateforme revendicative bi troisième point bi ak quatrième point bi yooyu la indi satisfaction avant même ñuy toog ak moom négociation loolu nag dafa xam force substance force ànd gësam ba xam ne bu ñu yëngalee dana métti trop mm-hmm. moo tax mu profité def loolu waaye ñu koy xaar ci nag ndax yeneen yi trop du lii dong moo ñu mm-hmm. xam na yeneen yi ñor nañu trop mm-hmm. eh, mu defee loolu dafa war a am mooy deuxième point bi prise de l'arrêté ministériel portant organisation de la formation ndax am na ay techniciens supérieurs yu nga xam ne génnoon nañ ba pare nekk technicien supérieur bac plus deux war a dem bac plus cinq maanaam war a am master deux loolu nag ministère de la santé moo ko war a organiser mm-hmm. te ci waxtaan ba président de la république da ko waxoon ne da ngay jël benn arrêté arrêté bi lan lay doon mooy créer euh, les conditions yu nga xam ne dañuy jóge bac plus cinq bac plus deux dem bac plus cinq loolu lan la euh, technicien supérieur yi bi ñu defee suñu xayma def suñuy saytu xool ne technicien supérieur ak maste deux cent heures moo nekk seen diggante te du ñun syndicaliste ñoo ko defoon mm-hmm. ministère de la santé via son sa DRH division de la formation INDSS mm-hmm. bi nga xam ne moo ŋànk lépp luy formation ci biir système de santé bi ak syndicat SUTSAS ànd gësam ñoo toogoon waxtaanee ko saytu ko ba gis ne cent heures moo ci manqué pour ñu mën a yegg fee cent heures yi lan la mooy quarante heures Euh, de d'anglais professionnel moo nekk trente heures d'informatique moo nekk trente de recherche yooyee lañ war a boole muy cent heure moom lañ war a defal formation technicien supérieur yépp pour mën leen a yóbbu Euh, fi nga xam ne mooy niveau master 2 mais li ñu gis encore une fois mooy état ak ministère de la santé nekk dans le dilatoire mm-hmm. li ma waxoon léegi syndicat yooyu taxawoon ne décret bi du fi amee du ñu relever suñu niveau ñooñee la ñu jël boole leen ci xeex ba ay la yowén nag suñu plateforme revendicative ñu toog di ko défendre ñu woo ñeneen ñu nga xam ne ànduñ ci ànduñ ci ak ñun ñooñee di def lu nga xam ne day gàllankoor liggéey bi wala boog da koy yeexal ñun loolu lañ ne duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg mm-hmm. woo nañ ñu la deux le neuf juin a comité de pilotage mais dañ caa boole ñooñu ñëpp syndicat yi nga xam ne dañ ne woon duñ ci ànd bokkuñ ci point de vue ñu bool ñu ci donc dangay ngay gis ne soit ministère dafa bëgg yàggal processus bi mm-hmm. wala am na lu mu ci bëgg daal mm-hmm. et keroog réunion ba wane na ko mm-hmm. avant ñu fay jógee am na pëccëxoo am na xuloo am na lu mais nag parce que divergence da caa bëri ñu ca gis-gis mm-hmm. ñun nag suñu plateforme revendicative la ñoo koy xeex nañ ñu bàyyi defal ñu sunu commité de pilotage bu nga xam ne ña ca d'accord ñoo cay ànd encore une fois bëgguñu benn dilatoire et puis na gaaw nu mu gën a gaawee ndax euh, démb démb di alxemes def nañu assemblée générale a mhm. Mbao mhm. ku nekk dégg na suñu déclaration yi nga xam ne def nañ ko fa mhm. te leer na ne bu ñu jógee tabaski incha allah bu état ministère de la santé deful lu leer ci comité de pilotage boobu nañ entrer à la vitesse supérieure maanaam suñu premier point ci plan ci plan d'action dinañ ko dérouler incha allah donc encore une fois ñu ngi wax di ñaaxaat encore une fois le ministère de la santé via sa sa direction des ressources humaines mhm. que na gaawal loolu mhm. moo fi waxoon encore une fois nabar mhm. fast track nabar encore une fois mu mel ni Naba fast track dafa nekk ay ay ay slogan euh, dañuy seetlu que ci seen plateforme revendicative yi bëri na ah, listé nga ko euh, douze la euh, mais dafa am benn boo xamante ne chaque fois dafa mel ni dafay dellu si mu di ñu allongé maanaam yokk li nga xamante ne moom moo di âge retraite bi daal di koy yóbbu ci soixante cinq ans mais tey ji ndax loolu biñ ko defee du ñu yéexal processus bi maanaam ñu recruter ay ndaw jox leen place yi nga xamante ne moom la ñu yellool waaw loolu loolu <laughs> yaakaar naa ne euh, lii nga waxee dafa nuru ne da ngaa dégg président keroog le premier mai li mu wax ne mag ñi dañoo bëgg a jël place gone yi. <laughs> est-ce foofu am fa <laughs> mais ban raison la fa am. Ah, mag ñi place kan lañ jëm. 65 ans alors que ya a des jeunes yu am 30 ans ñu wax a dugg. ñu ngi ñu ngi ñu ngi 60 ans ba léegi de. mais mag ñi ñu ngi fi de waaye xale yi amuñ xëy de. Hmm? muy contrat te yegguñ soixante cinq ans de. kon président waxam boobu yaakaar naa dañu ko wax noonu rek yàgg naa wax nag du ma def lii waaye buñ toogee moom dina ko def. ndax nag dañ koy jox ay argument argument bi ci njëkk rek mooy euh, bassin cotisant yi euh, at yi passé dañoo gisoon ne ñeenti nit ñoo doon liggéey pour fay benn retraité. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que da ngay cotiser euh, ku ne xam na ne IPRES chaque mois dañ lay dagg dara pour mën koo fay ñi nga xam ne ñoo nekk à la à retraite ñi nekk en service ñooy la ñuy dagg pour fay ñi nekk à la retraite mm-hmm. mais tey jii li ñu seetlu mooy benn nit du wax nit ak genn wàll ndax dana jafe parce que moom kenn mënu koo xaaj mais benn nit ak tuuti ñooy liggéey pour fay kenn ku à la retraite li ko indi lenn la tey jii euh, état bi recruter tul dans la fonction publique mhm. surtout ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci gu yaram ñan la ñuy def ay contrat rek la ñuy recruter contrat yu nga xam ne un an lay durer en an plus finir xañ na dafa bëri doole nag di def lu ko neex mais koo jël contrat ñaar yoon contrat à durée indéterminée nga ko war a defal malheureusement loolu amul dinañ ci ñëwaat euh, recruter tul dans la fonction publique da ngay gis nit ku jàng mhm. dem cinq ans dem ba ëppatul mm. trente cinq ans te duñ la recruter mm. kooku fan ngay cotiser boo ñëwee décisionnaire ngay nekk doo mën a euh, nit ñi da ngay dem am soixante ans mais toujours dangay nekk en activité mm. gis nañ ko retraité mais dem ci leneen di di di di liggéey foofu parce que toujours am na les am na la force de continuer donc moo tax ñu ne ko lan moo tere ñooñu noonu nga yokk leen seeni at seen soixante cinq a ñu mën a kon ne liggéey ndax bassin cotisant bi gën a a bëri mais aussi nga recruter xale yi ndax nag place yaa ngi fi mm-hmm. place yaa ngi fi tey jii euh, structure boo fa dem manqué na personnel mm-hmm. structure boo fi dem Euh, tëj na xaj na sax da ngay gis ay poste santé yu tëj da ngay gis ay centre santé yu nga xam ne dinaa tudd tuuti mm. Ranérou bi nga xam ne dem nañ fa bërki démb mm. tout un centre de santé d'un département muy centre de référence ñaari infirmier d'état ñoo fa nekk ñaari sage-femme d'état donc ñoo fa nekk sa yaram day daw ñoom ñeent ñooñu recevoir bërki démb bi ñu fa demee mais lan moo fa am kii day liggéey tey keneen ki noppaloo amuñu matron sax bu leen di dimbale amuñu ASC bu nga xam ne moo leen di kii ñooy consulter ñooy def le perfusion ñooy def lépp benn médecin ba ñu am muy médecin chef de de district ba ma nga ca séminaire ya ma nga ci yenn activité ya malgré que ci liggéey bi la bokk mm-hmm. donc amul jotu nekk di consultation ñoom ñeent ñaari sage-femme nga xam ne ñooy gérer maternité ba ñooy accoucher ñooy def lépp en plus de cela moo nekk coordonnatrice SR ba kii kineen ki di ñaari infirmier d'état ñoo nekk loolu nag boo nee ma tey jii du ma ndax mag ñi dañoo bëgg a jël place gone yi ça pose problème mm. nañu recruter gone yi bëri nañ génn nañ euh, def nañ seen formation ñu jox leen seen diplôme ñu ngi chômer malheureusement aussi sunu structures yi ils sont obligés d'aller recruter nan la ñuy recruter nit ñi bala nga naan naam ne fa ku amul la nga bëgg mais doo bañ dara luñ la jox da nga ciy daal di jàpp dañuy jël sunu infirmier dañuy jël sage-femme leen exploiter dañ lay eh, saajo ba ngay bëgg a dee la fay dara wala boog ñu lay fay des miettes mm-hmm. quarante mille trente mille wala boog dix huit mille dinañ ñëw ci problème mu CDS yi mm-hmm. malheureusement c'est ça mm-hmm. donc nañu allongé et puis on est dans un corps lan lañ ñu wax les médecins on a rien contre les médecins parce que ñun suñu syndicat And Gueusseum c'est des syndicats unitaires d'état de la santé de l'action sociale maanaam professeur bi nga xam ne moo gën a màgg ci liggéey bi ba ci gën a tuuti bu leen neexee mën nañu am carte de membre ci sunu syndicat yooyu kon médecins yi ñu ngi biir SUTSAS ñu ngi biir SUDTM ñu ngi biir CNTS kon on a rien contre ñoom d'ailleurs lu ñu am dañ koy tàccoog ñaari loxo mais tey jii bu dee jox nga ko ñenn ñi ci benn corporation ay la yéwén kay da nga ko war a jox men ñi ci des mm-hmm. li mbëtt yi bëgg nag bari yi bañuñu ko mm-hmm. loolu nag mooy li nga xam ne mooy dëgg te dinañ ci xar sunu tànk tubéy ba mu def ko mm-hmm. Euh, ñu ñu ñu ñu ñu des ci exemple bi nga joxe ah wax nga ko exemple boo xamante ne certainement il faut ñu taxaw ci lu toll ni Ranérou nga wax ci benn personnel boo xamante ne vraiment c'est limité ndax lu ni mel aussi yenn saay du leen di faratal di indi seen jafe-jafe parce que productivité bi mun na fa sooxee ba mun nañu sax def ay erreur yoo xamante ne amaana ma bu ñu amoon un nombre bu bu bu bu considérable dinañ mën a déjouer ay ay ay erreur ndax euh, dañ leen di farataal di duut baaraamu tuuma saa su ne. nañ la cee tuddal téeméeri exemple ak juróom-ñett fukk. Hmm? loolu moo am ci réew mi yëpp. et malheureusement erreur yooyu ngay wax ça nous arrive souvent. Mm-hmm. exemple Linguère a ngi nii. exemple Linguère a ngi lan moo ko waral. Mm-hmm. ñetti infirmier lañ am. donc ñaar assistant infirmier kenn ki hôpital ñoo ko jëloon en stage. Mm-hmm. amul woon sax contrat. muy ñetti nit lan lañ doon def ñooy gérer quatre services. am service su néonatologie bu nga xam ne surveillance bi toutes les quinze minutes la. Mm-hmm. am service su médecine am service su chirurgie molle maanaam ku biir di metteeg ba bañ opéré la. am mm-hmm. service su service su orthopédie ñoom ñett nit ñoo doon gérer quatre services yooyu. ay eh, la yéwén ñooñu koy def erreur dina leen yomb ndax doo duñ fa mën a nekkandoo ci service surtout que néonat nga xam ne toutes les quinze minutes la a def surveillance bi ba loolu dal leen fa tey ji mm-hmm. donc euh, c'est un problème qui est et vraiment nu demandons à l'État la production est la maanaam Euh, nit ñi génn nañ formation am nañ seen diplôme xarañteef bi am na fi mm-hmm. état du Sénégal encore une fois na recruter nit ñi mm-hmm. na recruter nit ñi te bàyyi des contrats en n'en plus finir ah tu vois jusqu'à Maka Koulibanta y a une assistante infirmière bu nga xam ne 2006 la génn am diplôme mais mi ngi foofu bénévole Maka Koulibantang dëkk fii Dakar Parcelles Assainies mën naa la cee tuddal fukk ak juróom wala lu ko ëpp mm. yu nga xam ne ci condition yooyu lañ nekk génn depuis 2006 qu'est-ce qu'il est en train de faire volontariat la nekk benn bénévole euh, ñu koy fay ay après calcul ci recette comité de développement sanitaire ak seen euh, clé de répartition bu nga xam ne tekkiwul dara ay douze mille francs ay quinze mille francs lañ leen di par weer. Mhm. des personnels qualifiés. Mhm. te état a des ressources pour recruter ce personnel là bu def na priorité la santé de la population. Mm-hmm. xaw ma nag li ñu gis léegi. Mm-hmm. Euh, la santé est au second plan. Euh, te pourtant fu ñu toll dañuy naan la santé pour tous kon mu mel ni loolu tamit slogan boo xamante ne dañ ko dañ ko dé déktal rek suñu noo. Euh, moo nekkoon objectif fu allemand ata ah avec l'OMS ah l'assemblée assemblée générale de la santé bu soixante dix huit. Mm-hmm. bi ñu ñëwee waxtaanee soins de santé primaires yi. objectifu allemand ata boobu nekkoon la santé pour tous en Afrique mais aussi dans le monde malheureusement date butoir bi deux mille woon mais ñu ngi ci deux mille vingt mhm. te foog naa ñi am santé fii ci réew mi ni ko OMS def définiré ah bu dee benn la tamit de doone ñaar mhm. bu dee kenn am na ko fi mhm. malheureusement et que euh, malheureusement je dis souvent que volonté politique bi mooy des ndax ressources yi am na fi ah ay sunu privé yi jàmbaar yi ñu ngi former chaque jour malgré que am na lu bëree bëri lu ñu war a wax ci formation bi mais lu mu mën boni boni am na un produit fini bu fay génn mm-hmm. tey ji état bu góorgóorlu woon tuuti recruter leen dugal leen dans la fonction publique yaakaar naa jafe-jafe yu bëri dootul amati mm-hmm. ay jàmbaar lañu il faut le reconnaître il faut le diir mm-hmm. kuy dem bàyyi sa njaboot bàyyi lépp dem nekk ay volontaire mm-hmm. de la santé dem di góorgóorlu su guddeeg bëccëg suba ngoon xaaroo ci dara ñooñu war nañ leen a delloo njukkal mais loo ci gis au contraire ay noon lañ ñu def mm-hmm. au contraire dañuy dugal ci ay pax chaque jour pour créer ñu lan ngay gis condition de travail yu doy waar ba ngay gis ay agression comme ni ma ko waxee léegi mën naa la ci tuddal ñeenti agression yu nga xam ne matul un an wala matul six mois bi mu xewee Ndofane agressé nañ fa infirmier chef de poste ba ak jëkkëram ñu euh, koy waxee Kaolack non non bi ak infirmier bi lañ agressé à Ndofane Kaolack ñu inf agressé fa infirmier ba ak jëkkëram mm-hmm. euh, fii nii barki Dembo Ndiaye di Joal ñu euh, agressé fa sage-femme bu nga xam ne moo nekk fajalte benn vol la il faut le il faut le il faut le dire bénévole la amul woon salaire mu dem ñu agressé ko foofu ndax lan waa ji da koo bëggoon a lu ñaaw lu doy waar amul benn sécurité te boo demoon tey jii ci logement ba ñu nekk ndax nag dinañ ci ñëw nee nañ ñu duñ ñu fay heure ndax am nañ logement mais boo gisee logement ba mu nekk dama koy wax toujours loo fonk doo ko fa denc même bu dee ay bagage mm-hmm. ndax toujours mën naa daanu ci kawam mm-hmm. foofu lañ nekk di fa fanaan bu dégg bëccëg suba ngoon bàyyi seen kër yu nga xam ne comme hôtel euh, di fa def maladie aussi difa fa liggéey te lu nekk mën na leen faa fekk ñuy dëkk ak jaan yeeg jiit noonu boo ca ne leen ñooñu ma leen fay heure supplémentaire heure supplémentaire lan la jotee ak logement. Hmm? paradoxe yaa ngi noonooti. mën naa la fee te <laughs> téeméeri paradoxe ak juróom heure supplémentaire lan la jotee ak logement bañ ne ku am heure supplémentaire du ku am logement la fay heure supplémentaire. logement bu nga xam ne baaxul suba baaxul ngoon d'ailleurs euh, ñenn ñi sax amuñu ko tu vas à Mbirkilane ah dans le poste de santé de Kër Mbukki sage-femme ba ak ICP ba ñu ngi dëkk moyen moins de à presque un kilomètre wala cinq cent mètres du poste de santé nga war leen yee guddeeg bëcc guddi ñu war a dem di xooli maladie ñaata yoon lañ leen fa mën a agressé lan lañ leen fa mën a def. nga ne du ma leen fay heure parce que am nañ logement boobu te ñooñee nga war leen a fay indemnité il faut le dire de responsabilité parce que nag ay responsable lañ ay chef de service lañ indemnité de fonction war nañ leen koo fay indemnité de responsabilité war nañ leen koo fay mm-hmm. ndax lan ay chef de poste lañ ay maîtresse sage-femme lañ fa ñu nekk mm-hmm. ay major de service lañu ay maîtresse sage-femme lañ ci seeni centre de santé ñooñu amuñu loolu ba pare nga xëy ne leen du ma leen fayaat heure supplémentaire loolu mm-hmm. jaaduwul mais duñu bàyyi mu dem Euh, euh, du ngeen du ngeen bàyyi mu dem ah. gis nañ ne à chaque fois bu fekkente ne yow wax nga ko ay maîtresse euh, de santé wala ay major entre autres dañ leen di faratal di def ay ay ay ñaawteef ba yenn saay sax da ngeen di génn def ay sitting def ay port de brassard rouge ngeen yegg sax ba di def ay menace menace dale en grève bu coow li yëpp weesoo mu mel ni dossier yu ni mel dañ koy farataal di classer sans suite ndax dañ koy wax benn ñaar ñetti yoon même plainte sax amaana ma yenn saa yi du du du aboutir euh, mutisme euh, de nos autorités aussi ci wàllu woowu naka ngeen ko jàngatee parce que yéen di def seen wàll plainte sax da ngeen koy farataal di def mais mu mel ni buñ ci waxee benn fan ñaari fan affaire bi suivi bi dootul am ndax mos ngeen am benn satisfaction euh, ci seen xeex yu ni mel. ndax mos nañ cee am <laughs> Euh, bëri na satisfaction yi ñu ci am aussi là aussi il faut le il faut le il le dire parce que nag euh, tey jii euh, dañ koy faral di fàttali toujours infirmier d'état bi ñuy commencé trente deux mille quatre cent li ci ëpp suñuy salaire loolu la doon doon trente deux mille quatre cent mais tey jii am na indemnité yu bëri mm-hmm. xeex bi moo ko may mais aussi li relevé bulletin de salaire bu njëkk Eh, sunu mag ñi loolu la ñu doon wax nee na bu weer deyaan bu ñuy fayeeku ñu ñoom dañuy bàyyi ba ñëpp fayeeku ñu soog a dem parce que ñoo dem nit ñi gis liñ leen di konteel ah eh, malheureusement tey jii nag lu mu boni boni war mën nañoo dem fayeekondoo ak ak ñëpp. Mm-hmm. loolu nag xeex moo ko may. la la ko may nag bu ñu ko bu c'est des acquis la ñu ko may nag nañu ko xam bañ koo bañ koo bañ koo koo fowee mm-hmm. mais malgré tout. dañoo am état bu nga xam ne gouvernement bu nga xam ne maanaam jàmbaar la ci dilatoire lu mu wax tey ëllëg mu dindi ko mais aussi ak euh, li amoon nga xam ne ministère ministre de la santé yi chaque six mois ñu changé ministre yu mel noonu loolu doon na yàggal liggéey bi ndax buñ ñëwee am ay aki ci kenn ki ñu xëy ñu wàcce ko ki ñëwaat bees a naan non xaar leen tuuti ba ma jàngat euh, seen doléance yu mel noonu soog leen mën a tontu balaa koy jàngat bay pare ñu wàcce ko mais l'un dans l'autre mooy ñun moom on est un contre-pouvoir li ñu gëm mooy on va faire des compromis dynamiques mm-hmm. mais nous ne ferons jamais de compromission li am mooy dañuy xeex bu jaree ñu wàcc ci tali bi dinañ ko def mm-hmm. bu jaree ñu porter plainte dañ koy def parce que nag barki démb rek à Linguère am na fa sunu benn naataango bu nga xam ne dañ koo jël defal ko contrat lié au post de Warxoox ñu ne ko doofi fi kii préfet xëy jël affectation affecté ko. Mhm. dañ koo xeex. ba jar ñu porter ko plainte au niveau du bureau du travail porter plainte DRH au niveau du bureau du travail. Mhm. ba ñu am ca satisfaction ba tey jii delloo nañ ko ci. Euh, place loolu loolu ay ndam la yu nga xam ne mooy les différents points yu nga xam ne noonu la ñuy xeexee mooy buñ ñëwee dañ naan la ñun kat suñuy jafe-jafe ña ngi nii war nañoo toog négociation buñ toogee juboo xayrun buñ juboowul nag ñu ne la mbedd mi la ñu am dañu daal di wàcc mbedd mi léeg ñu banque suñu loxo dem nañ fi ba daaw ñu bloqué lépp luy vaccination PEV loolu nag bëgguñ caa yegg mais buñ ñu poussé ñu yegg ca te mooy suñu arme aussi ndax tamit ci la ngay liggéey rek ci nga am arme nest donc mi ngi noonu Euh, mbokk auditeurs yi ma fàttali yéen a ngi teewlu seen émission bi di SOS santé SOS santé nag euh, tey am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di Issa Gueye Issa Gueye nekk secrétaire euh, Issa Issa Gueye nekk secrétaire administratif adjoint de l'alliance des syndicats autonomes de la santé de la santé ñu gën ko xam ci kuréel bi di ànd gësëm wax nañ ci plateforme revendicative yi xam naa ne sax duñ ko mën a duñ ko mën a écouler mais Issa dañuy dugg rek ci beneen wàll bi nga xamante ni moom moo di coronavirus coronavirus bi wax nañ ko waxati ko mais mu mel ni troisième vague bi lim biñ ci commencé dégg daanaka jéggi na dayoo ca beneen wàllu wa Issa ñu ñuy wax li nga xamante ne moom moo di rupture de vaccin tey jii nii fi ñu toll nii ndax xel moom euh, xel moom mënati na dal ci ci jàngoro bi. <laughs> Hmm, xel de du ci dal. Mhm. mais di ma may tuuti rek ma ñëwaat ci ñaari point ci plateforme revendicative muy cinquième point parce que nag dañoo ñor lool. Mhm. muy euh, organisation de la formation complémentaire des assistants infirmiers. Mhm. conformément aux conclusions du séminaire de la DRH. bindoon nga ko waxoon nga ko départ mais dañ ko xawoon a far ñun ñaar ñëpp. mooy Euh, assistant infirmier yi euh, suñuy naataango lañ mais ñoom seen formation BFM plus deux ans la muy niveau première ok donc li ñu gis mooy dafa am benn du ma wax suufel ndax état bu créé corps ci sunu gis-gis encore une fois parce que sunu président de And Gueusseum moo toog plaidé ba ñu créé corps boobu ndax nag euh, dañoo gisoon ne poste de santé te moo xew ba léegi dañoo amoon jafe-jafe maanaam liñ leen di laaj ci liggéey bari na mais poste santé yëpp amuñu woon euh, infirmier d'état mais tamit administrativement lañ leen laajoon bare ñu ne nañu créer benn corps bu nga xam dina mën a doubler infirmier d'état yooyu ci la ñu créer corps assistant infirmier mais li ñu gis mooy am na ay projet yu fi jaar lu mel ne ISMEA bërki démb di investir dans la santé de la maire recruter bañ cee boole ñooñu mm-hmm. ay la yéwén loolu dañ naan jaaduwul te bu mu fi amati mm-hmm. ndax ñooñee am nañ compétence yi pour investir dans la santé de la maire loolu daal dinañ ci jàmmarloo ak état du Sénégal ba ëllëg genre projet yu mel noonu su fi dinañ ci boole jàppale ñooñu mais tamit li tax ñu wax loolu tey jii ñi nekkoon infirmier d'état yi euh, dañoo jógee B4 dem B1 euh, assistant infirmier yi nekk c un ba léegi te c un boobu Euh, dans les normes duñ mën am possibilité pour def formation mën a jógee euh, inf assistant infirmier dem infirmier d'état mm-hmm. ndax nag niveau première la te pour nga dugg infirmier d'état il faut nga am niveau bak moo tax nag ñu comme nous sommes un syndicat avant-gardiste ñu demandé woon à l'état du Sénégal revoir ñi seen formation soit mu defal leen une formation de trois années maanaam BFM plus ñu am niveau bac suñuy génn mën a dem B4 hiérarchie b ba mën a def concours professionnel mais aussi mën a def yeneen concours yu mel ne ak wala yu mel ne ENAC yu mel noonu loolu pour ouverture la ak pour plan de carrière ñu def suñuy étude biñ ko proposé ministère de la santé ñu doon waxtaanee benn atelier sur euh, les écoles de formation ñu bërëxal ci ñun assistant infirmier yooyu c'était en 2018 ñu waxtaanee ko ba ne ay la ñi nga xam ne génn nañ ba pare dañ leen defal un an formation soit mu nekk benn formation en mais ñeneen ñi nga xam ne génn guñu ci war a def ñu yóbbu la trois ans mais loolu ba léegi dafa avancé wul. Mm-hmm. barki démb bi ñu toogee en négociation le 2 juin waxtaanee nañ ko ak DRH ba mu nañu proposition yooyu su ma ko jotee incha allah dinañ ci dinañ ko doxal. Mm-hmm. ah nga xam ne benn formation en ligne lay nekk loolu aussi ñu ngi laaj état bi mu gaaw taxaw ci. ministère de la santé gaaw taxaw ci ba nga camarade assistant infirmier yooyu dinañ mën a nekk des assistants infirmiers BFM plus trois ba mën a continuer seen plan de carrière mën a nekk docteur en soins infirmiers wala même continuer ba nekk professeur mais beneen bi aussi mooy paradoxe bi gën a bi ñu waxoon léegi lu mel ne technicien supérieur yi mais dafa am sunu biir ay ñu nga xam ne ay travailleurs sociaux lañ leen di wax te ñuy génnee fële ENTSS ah muy école nationale des travailleurs sociaux spécialisés tey moom wax naa ko juumuma <laughs> Euh, collègue lañ doon yu nekkoon ay enseignant wala yeneen corps xëy def concours bi pour yokk nekk ay conseil en travail sociaux mais li ñu gis bu ñu nekkee conseillers en travail sociaux indemnité yañ amoon ca enseignement dañ koy nangu ba mu set wicc tey jii gis nañ ci ku nga xam ne jógee na ca corps ba mu nekkoon ñëw nekk travail conseil travail en conseil conseil en travail social perdre ci salaire am lu toll ne deux cent mille ay la yewen ba ñuy jàng dañoo bëggoon yokk yokkute ci xam-xam mais aussi ci statut sociale mais aussi financièrement ngay yokk mais kenn jàngul pour wàññeeku loolu la ñu wax ne nañ leen delloowaat intégralement seen indemnité yooyu mais aussi indemnité yi am santé yëpp ñu jox leen ko mm-hmm. loolu aussi moo nekk ñu koy waxee septième point plateforme revendicative dafa am yu nga xam ne moom kenn du ci négocier négocier mm-hmm. kenn du ci négocier mooy suñu douze points yi yëpp ay la yeween biñ ko waxtaanee nee nañ yëpp de war nañ cee waxtaan waaye nañ cee waxtaan ñu trouver ci solution lu mel cle de répartition CDS ndax sunu mbokk ASC xeex nañ ko li ma la wax léegi valsu ministre yi dinañu créer toujours problème sunu mbokk euh, ASC yooyu nga xam ne dañ leen di jël noon rek benn voilà sur le temps ñuy liggéey euh, guddeeg bëccëg suba ak ngoon te li ëpp ci liggéey bi ñoom ñoo koy def euh, lan la ñuy gis dañuy calculer ci recette yi ñu leen di jox ay miet lu nga xam ne rus nañ koo wax sax ni ñi nit ñi di ñu dégg mu doy waar trop loolee lañ ne nañu revoir clé de répartition ba nga xam ne ñoom ku ci wàcc di nga mën a am loo yóbbaale sa kër say doom o moins am lu ñu mën a def seeni euh, seen seen biir malheureusement loolu la ñu gis ak yeneen ak yeneen indemnité de risque kan moo ko war a yelloo ko dul ñun bu njëkk dañ koo laaj ñu jox ñu cinq mil ñu ne baax nañ jël mais dañ amaat biñ laajaatee ñu yóbbu ko cinquante mille mais tey jii dañ ñoo war a yóbbul ba cent mille gën gaa dee mais ba pare yóbbu ko ci indemnité ci euh, pension de retraite bi parce que feebar yi ngay engobee sa pro sa sa sa carrière yëpp boo màggetee lay ñëw wala boo demee retraite lay ñëw yooyu yëpp dañu ko war a dañ koo war a dañ koo war a dañ koo war a dañ koo war a xoolaat bu baax a baax donc yooyu la mënuñoo wax li nekk ci plateforme bi yëpp mais ñu jàpp ne daal douze points la te douze points yooyu yëpp incha allah dinañ ci def li ñu war bu ci nekk am na solo am na njëriñ lool. Mhm. te ñu ngi ciy xaar aussi satisfaction du gouvernement. Mhm. sinon on menace personne. waaye barki démb le premier mai dañ maa woo benn émission ma ne ko daal le onze soreetul ñu ngi xaar sunu décret yooyu mu génne ko mhm. dégg na ma nag le cinq mu génne ko waaye fii dama koy waxaat. Euh, ñi ngi xaar sunu douze points yi des satisfaction sinon encore une fois ñun fi ñu xamee mooy xonqal bo mu xonq rek comme mel ne ay xoy wàcc ci terrain bi wane suñu bopp. d'accord d'accord. ñu ñu ñu ñu ñu jëm ci li nga xamante ne moom moo di mbas ah. euh, ñu ngi nii di wax li nga xamante ne moom moo di troisième vague bi ak ay loraange yi muy def euh, ci weneen wàll wi tamit ñu ngi xamante ne fu mu ne nii eh, am li nga xamante ne moom moo di vaccin nekk na loo xamante ne jafe na contrairement ak mois yi ñu génn nga xamante ne dañ doon def euh, tapage porte à porte pour inciter nit yi ñu dem ñu dem ñu dem vacciner yo tey ji nag ndax nag xel. Euh, mën na daal ci ci ci ci corona bi avec son lot de malheur. oui euh, lot de malheur beaucoup de malheur il faut le dire damay wax rek euh, gàcce ngalaama ñu ngi delloo njukkal ñi nga xam ne ñooy liggéey santé yi. Mhm. bokk ci ñun ah. parce que avec ou sans moyen ñu ngi wàcc ci terrain bi. Mhm. dama koy wax toujours euh, ñun liggéeykat de laajuñ dara lu tax laajuñ dara dañ ñoo former recruter ñu dugal ñu ci liggéeyukaay yi pour ñuy dimbale nit ñi kon laajuñ dara ci mbas mi laajuñ dara ci beneen feebar nañ daan faja yeneen feebar yi noonu la ñu takkoo di faj mbas mi waaye nag dañ cee gis ay mbir yu nga xam ne yu bëri da cee jaar te jaarul yoon mm-hmm. yooyu nag dañ ko war di wax toujours mm-hmm. ba ñi ko war a dégg dégg ko encore une fois laajuñu nañu nañ ñu jox parce que ba ñuy waxtaanee xaalis bañ ciy dugal fekke wuñu bañ koy joxe ñun laajuñu ko ñi ngi joxe nag waaye ku jox ñi nanga nga jox ña ca des euh, bi mbas mi nuyoo ñun au niveau de And Gueusseum yaakaar naa jéego nañ ci dox yu am solo avant même mu yegg si Sénégal la ñu tàmbali ñun suñuy dox di woote waxtaan mais aussi nu woo moroom mi nga xam ne ay camarades lañu organiser ay webinaire maanaam ay réunion en ligne di waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom ci jàngoro ji mais aussi waxtaan ak ñoom ci mbas mi waxtaan ak ñoom ci vaccination bi njëriñu vaccination ak vaccination vaccin yi fan la jógee maanaam ñàkk yi fan la jógee ba yegg si fii tey ba ñu war koo mën a ñàkk ñàkk nit ñi ci la ñu fi woo waa dialogue social ci la ñu woo ñeneen ak ñeneen euh, réseau des femmes ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen woo nañ leen fi waxtaan même la population bokk nañ ci webinaire yooyu nga xam ne defoon nañu ko rien que pour convaincre nit ñi que ñu dem ñàkku ji kër mm-hmm. convaincre nit ñi que jàngoro baa ngi fi mais ay la lan la ñu gis paradoxe yi encore une fois mooy lan ñàkk yooyu doyul na mu war a doyee benn balaa may wax ñàkk yi rek dinaa wax barki démb bi ñu demee Tamba Euh, waa Tamba ñoo ko waxal seen bopp kenn waxuñ ko ñoom ñoo ne jotaguñu benn moyen de prévention bu jógee ci état du Sénégal yi ñu am yëpp ci municipaux yi ak ay bonne volonté lañ ko amee municipaux yi ci état du Sénégal lañ bokk mais directement ministère de la santé jotuñu benn yoon benn subvention moyen moyen balaa ngay wax subvention moyen masque gel hydroalcoolique jotuñu ko kookee nga ne ko xeexal jàkkaarloog feebar bi da nga koy exposé mais malgré tout ay jàmbaar lañu ak bonne volonté yi nga xam ne dimbale nañ leen jox leen les moyens ñu nekk ca ba nga xam ne jàngoro bi dellu na ginnaaw premier bi état war jël ay matuwaayam jëlu ko ba mu ñëwaat deuxième vague bi ñun jàkkaarloowaat ak moom malheureusement état jëlul ay matuwaayam ba xëy di wax fu nekk naan nous sommes les premiers sur la lutte ak nous sommes nii nous sommes nii ba jël ay nit di leen décorer di leen def ay champion de la lutte te boole wuñ ci benn liggéeykat mhm. encore une fois champion de la lutte c'est vrai que ministère moo ñu ëmb ñun ñëpp waaye champion de la lutte du Diouf Sarr champion de la lutte je n'ai rien contre aucun journaliste jàmbaar lañ ci trop ndax lu ñu def yàlla ak ñoom la ñoo koy wane ñoo koy dox ñoo koy kii mais boo nee journaliste bi jàmbaar la ci di nga ne ASC bi agent santé communautaire bi nga xam ne amul salaire deful dara di liggéey guddeeg bëccëg suba ngoon di xeex mbas mi au moins nga jël ci kenn ne ko yow champion nga mm. loolu lañ doon xaar ci état du Sénégal mm. mais tey ji décoré nañ ministre de la santé décoré nañ keneen décoré nañ keneen mais du benn agent bu ñu décoré loolu ñaaw na mm. tey jii ñi a xam ne ñooy infirmiers d'état nekk au premier front waroon nañ leen décorer mais lan la ñu gis au lieu ñu décorer leen au lieu ñu mettre leen dans de bonnes situations dañuy jël xaalis boobee di un mille milliards yi ñu ci génne di ko jox ay ñeneen dégg nañ fi ay artistes dégg nañ fi ñeneen war am seen wàll ndax seen liggéey dafa gàllankoor. Mm-hmm. mais ñi nga xam ne ñoo nekk ci terrain ba di jàkkaarloog toujours maladie ñooñee war nañ caa am te président ci boppam moo xëy na dina jox travailleurs ku nekk cinquante mille. Mm-hmm. six mois am ñu jot il faut le dire mais ña ca ëpp ñii ñaar weer lañ jot ñi ñetti weer lañ jot ñii jotuñu dara yaakaar naa nag lu mel noonu ba koy def dafa waroon dem ci barabu liggéeyukaay ne leen wax leen ma ñan ñooy liggéey ci Covid bi ñu jox ko list ba mais dane day jox état gi du état yi rek ñooy liggéey fonctionnaire rek du ñoo liggéey ci Covid bi ñoo gën liggéey ci corona bi duñ ay fonctionnaire ay bénévole lañu ay ASC agence santé communautaire lañu ñooñee war nañ lañ cee jox ba léegi ni du benn agence santé communautaire bu jot ci maanaam ndàmpaay boobu. Mm-hmm. agents municipaux yi lu toll ne six cent personnes wala lu ko ëpp tey jii ba léegi nii ñu ngi seen situation régularisée guñ ko loolu dañ ci remercier waale le camarade président vice président de And Gueusseum ci parce que defar na liste bi toilettage bi ba ñu xaar ñu fay leen donc mi ngi noonu beneen paradoxe bi mooy ñu ngi gis tey jii lan moo xew le président de la république wër Sénégal yëpp xaj na moom dina protégé wu ndax nit ñi duñ ko jege ba mun ko wàll dara mais li ëpp ci nit ña muy drainer foofu kenn amu ci protection kenn du takk masque mu drainer foule yi demoon ba jàngoro bi xawoon a wàññeeku bañ naan benn cas par bis wala tey jii amuñu dara ci réew mi mu dajalewaat nit ñi def nee Mm, tournée économique alhamdulilah bu dee tournée économique baax na mais wër Sénégal yëpp encore une fois dajale nit ñi ba tey jii lu ñu mësul gis mu am mooy lan démb di la 14 juillet di sama anniversaire aussi mm, maa ngi ñaanal sam bopp <laughs> gudd fan ak wér di ko ñaanal ñëpp ñu am lu toll ne 733 cas lu mësul am ci réew mi tey jii. lu doy waar te jógewul feen sumay may seen tournée yooyu nga xam ne moom la ñu def il faut le dire il faut le mm-hmm. reconnaître mm-hmm. te du président rek ginnaaw ba mu jógee ñeneen ñu bëri jóg nañ def seeni tournée ay la yowén nañ ñu dimbale encore une fois pour ñu mën a dimbale nit ñi mm-hmm. loolu lañ ciy wax jox ñu les moyens yu nga xam ne mooy mën a tax ñu xeex jàngoro bi muy les moyens de protection mais encore une fois seen yooyu ñu def dafa tax nit ñi gëmatuñu ne ñoom war nañoo utiliser les moyens de Euh, protection le mesures barrières ndax nag suma naan la moytul lii ba pare man te dem moytuwuma ko c'est une mauvaise publicité que le président nous a vraiment gratifié mm-hmm. malheureusement il faut le il le dire mm-hmm. tax na nit ñi tey jii gëmatuñu ne dañoo war a def mesure barrière waxuma gëmuñu feebar bi gëm nañ feebar bu baax a baax a baax mais gëmatuñ ne war nañoo def mesure barrière ndax ka leen ca war a jiite di la premier sénégalais moo def lu woro ak loolu mm-hmm. beneen guddeeg bëccëg suba ak ngoon dañuy jot lu ëpp fu vingt appel léegi nii rek sama téléphone mi ngi sonné gis nga ko ay vaccin la ñu bëgg yu nga xam ne war nañ leen a ñàkk te vaccin amatul ci réew mi fii ci Dakar de amatu fi dara te ñi ko desee kas néew daanaka bëreetul ci district yi ko amee wala yu mel noonu mm-hmm. tey jii am na ñu nga xam ne jël nañ seen première dose seen deuxième dose jot amuñ luñ leen ñàkk mm-hmm. muy AstraZeneca bi Sinopharm bi xaw naa des tuuti mais lu mel ne AstraZeneca bi ña jëloon première dose ña ëpp matul cinquante pour cent ñu nga xam ne jël nañ seen deuxième dose loolu ay problème la mhm. kon dañuy lancer un appel au ministère de la santé à l'état du Sénégal nañ ñu dimbale encore une fois nu mu gaawee indil ñu les doses d'AstraZeneca wala yeneen dose nee nañ am na une usine de production de vaccin bu ñu war a à Pasteur mhm. bu war a jëm deux mais loolu c'est une euh, des objectifs à long terme. Mm-hmm. deux mille vingt deux juin deux mille vingt deux feebar baa ngi fii du xaar. donc nañ ñu utal stratégie bu gaaw à mm-hmm. court terme mm-hmm. bu nga xam ne fii ak suba wala gannaaw suba dinañ mën a am ay vaccin yoo xam ne dañ ko mën a vaccin sunu population parce que nag moom kase moo fi des lu tax ñu yaakaar jàngoro bi arrière ndax nag tax nañ nit ñi gëmatuñu les mesures barrières nañ ñu dimbale au moins vaccin am ñu vacciner jaam ñi. Euh, feebar bi mën a reculer. Euh, li ñu dese ci waxtu wi daanaka bëreetul mais dañu buggoon rek nga dellu ci un tout peu ci li nga xamante ne moom moo di seeni subvention jëm ci li xamante ne moom la ñu duppee mutuelle de santé chaque fois ñu ngi wax ay euh, mutuelle de santé mutuelle de santé ñu bëggoon xam ndax seen kuréel bii di ànd gësëm gis ngeen ci seen bopp ci lu ni waaw ñun moom euh, mënuñ cee gis suñu bopp ndax kenn duñu <laughs> kenn duñu subventionné ah. Mhm. nee nañu ay travaux kii lañ ay syndicalistes lañ ñooy subventionné suñu bopp d'ailleurs laajuñ subvention kenn euh, li nekk nag mooy mutuelle de santé yooyu dafa am ci lu mu ëmb maanaam ci programme bu mu nekk muy CMU di couverture maladie universelle. Mhm. tey jii CMU boobu moo sooxal bu mu newul lompoñal sunu structure sanitaire yëpp. muy hôpital EPS niveau trois ba niveau en muy structure poste de santé wala centre de santé wala district yi seen CMU boobu moo leen lompoñal ndax nag mm, politique gu état appliqué la tut mhm. tey jii bu état bi ñëwee ñun ñuy ndaw état bi mu ne ñu kat sama njaboot gi bu ñu feebaree ñëw leen faj leen gratuité zéro cinq ans gratuité césarienne plan Sésame ñëw yooyu yëpp ñu koy def te wax dëgg yàlla dañuy toog ñaari at ñetti at duñu jot suñu pay googu dina sooxe liggéey ba ndax ca loolu la ñuy yaakaar pour dem jëndi garab ñëw faj leen moo tax léeg-léeg da ngay ñëw ci hôpital wala ci poste de santé ñu xool la war laa jox garab sa doom am diggante. Euh, bi mu juddoo ak juróomi at ñu war koo may garab mais doo fekk benn sirop buñ ko mën may mm-hmm. ndax nag état bi lam ñu war a delloo ci xaalis ñu dem jëndiwaat garab yu ñu fay teg pour ñooñu moom la defut donc loolu moo tax ma ne lompoñal na tey ji structure sanitaire yëpp mm-hmm. euh, rax ci dolli Euh, sañu ñoo bañ sañu ñoo bañ bërki démb mat na juróom-benn weer lan la état bi def encore une fois ndax nag dafa jëlee CMI fi mu nekkoon yóbbu ko ci beneen ministère nekkatul léegi ci ministère de la santé mais lan la ñu gis mu xëy génne benn payoor subvention lam ñu amee tey jii bu dee ameel nañu téeméer mu génne ci fanweer ne yow mi hôpital principal de ameel naa la téeméer dama lay jox fanweer yi nga téye ko waaye juróom-ñaar fukk ya des da ngay noppi ñu fàtte ko est-ce que hôpital principal bu nangoo loolu dina am lu mu fajee tey ëllëg maladie est-ce que loolu jaadu na ci nguur gu respectueux foofu la ñu toll tey jii ci couverture maladie universelle ñi ngi wax nag su naataangoo yi a population bi yëpp nañu dem inscrire ci mutuelle de santé yi ndax dina woyofal paj mi foo waroon a fay téeméer boo fa fayee ñaar fukk donc dina woyofal paj mi te wax dëgg yàlla réew mu ndéew doole la ñu nekk encore une fois nañu dimbale subventionné population boobu aussi def na ko ndax la ñu war a inscrire mais bien que trois mille cinq cent la ñuy inscrire yeneen trois mille cinq cent état moo ko joxe mais war naa gën a mën a dëgëral même subvention boobu ndax tamit trois mi borom kër bu benn trois mille cinq cent la am war koo añee dem di ko inscrire mutuelle de santé donc nan ko gën oyofal bu dee wala dara te nag bopp bu après da koy cotiser bu dee mille francs yu noonu mm-hmm. est ce que dinañ ko mën ça pose problème ndax nag bu ñu fàtte ne réew mu ndóol la ñu nekk mm-hmm. a xalaat population bi ci seen politique de santé eh, politique de santé waxtaan wi am na solo waaye daanaka lu ñu cëraloon ci waxtu wi daanaka yegg nañ ca Issa Gueye sa kàddu gu mujj ci tënk. Euh, sama kàddu kàddu gu mujj peut-être mooy woowaat état du Sénégal à être plus responsable. Mhm. parce que nag euh, ñun de ànd gësam li ñu xam mooy on vient avec une plateforme revendicative mais on vient aussi avec des propositions de solutions. ñëwuñu pour encore une fois une plateforme financière na na defali suñu poste nañu defali suñu poste suñu plateforme mën ñuy wax lan mooy defar système bi nan la ñuy def ba ñu jógee fii dem point B loole fa la ñuy xaar état bi pour mu responsable di ñu déglu mais aussi di baral ay décision mais aussi lu ñu signé ak moom encore une fois na ci jël ay matuwaay ya ca war ba nga xam ne du ñu demaat di xeexaat pour application de ces accords euh, leneen li may wax rek mooy ñaat encore une fois remobiliser sunu camarades yi sunu camarades yi nga xam ne ñoo nekk dans tout le pays tous les camarades de de de And def nañ le tour du Sénégal démb lañ def clôture bi au niveau de du centre de santé de Mbao district mbaaw mobilisation bu rëy am na fa yaakaar naa bu ñu seetaanee télé yi dinañ ko dinañ dinañ ko gis donc di leen wax ne ànd gësam de mosuñ leen a may dara te xaaruñ kenn may ñu dara li war la ñuy laaj li war ci ñun la ñuy laaj loolee nag ñi ngi xaar état bi def ko ci waxtaan ci jàmm bu ko deful nag nous lançons un appel à tous les militants à tous les camarades que ñu fagaru ndax nag sunu arme mosuñu ko sànni. Mhm. dañ koo teg sunu. ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm. Mhm. di rafetlu aussi sa émission bi. Mhm. vraiment di wax ne sunuy partenaire ngeen te xam ngeen ko bu baax a baax a baax. Euh, bu ñu soxlaa ngeen euh, teew ànd ak ñun parce que tamit. Euh, on est un parce que réew mi rek moo leen ñor comme ni ngeen ko tuddee ni réew mi FM ah le groupe réew mi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm mm-hmm. encore une fois et merci pour tout mm-hmm. surtout yow mm-hmm. parce que mu ngi noonu yaa ma gën a xam ah su meloon ni waroon a mel wala ma amoon disponibilité tuuti émission bi defoon nañ ko bu yàgg mais on comprend loolu la yàlla dogal ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm surtout sant ko bu baax a baax moom mi nga xamante ne moom moo di Issa Gueye mu nekk secrétaire administratif adjoint de l'alliance des syndicats autonome de la santé ak euh, ñu gën ko xam ci ànd gësëm mbokk auditeur bi di SOS santé Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Léopold Mendy nekkoon ci xarale bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité incha allah ci Rewmi